يأتي النبي الخالق نانا يونت بو مجي نيو yonent يالا محمد ابري ci la wajé عندها يأتي المخلص الموعود كي جن مني تي di len دا نيو نكاي ñu المهدي يكون حاكمها المخلص الموعود موي كيغا خامني موي سيت وسينشر القصه موي فدل نيت موي اندي مامي ci كوسوف لا شك أنكم سترون النبي الخاتم والمخلص فهل أوصلتم إليه سلام؟ محمد صلى الله عليه وسلم góor la mbokk yi góor gi moo dajoon euh, moom moo doon xaar Yuusuf bañ ko sànnee ca teen ba mun ko xaar naa la fii ñaari junni at dala fi xaar tey bii mooy mujj dajeem bu ma dajeeg Yuusuf dénk na ko nekkoon nag am na yeneen bu ñëw sa ci mujjantal yeneen yi ñu ko wax yent yàlla Muhammad waaye ginnaawam almahdi dana ñëw ca ginnaaw yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom nag mooy alwilayatul uzma gu màgg gi mooy ki nga xam ni